بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi ginnaaw ba nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu tey mooy sunu ñaareel dars ci waxu yàlla bi tabaraka wa taala bi muy wax innama zalikum shaytan innama zalikum shaytan yuxawifu awliyaahu fala taxaafuhum wa xaafuni in kuntum muminin aaya bi ci kitaabu tawxid tey mooy sunu ñaareelu dars ci aaya bi mu ne alxawfu min afdali almaqamat addin wa ajalliha loolu ñu naan alxawfu te mooy ragal mu ne mi ngi bokk ci min afdalil maqaamaat ci taxawaay yi gën a tedd yi gën a rëy ci diine gën cee màgg ci la bokk wa ajmau anwaaul ibadat dafa boole mbooleem façon jaami yàlla yi moom ragal allati yajibu ixlaasuha lillahi taala yi nga xam ne jaamu yàlla yi nga xam ne yàlla rek subhanahu wa taala lañ ko war a defal moom alxawf def ko am def ko boole loolu tax mu nekk jaamu yàlla bu màgg min afdalil maqaamaat addiin moom ragal moo tax borom bi tabaraka wa taala wax ci alquran ci suratu nahl aya 50 mu ne yaxaafuuna rabbahum min fawqihim yaxaafuuna ña ngay ragal rabbahum seen boroom min fawqihim ci seen kaw borom bi subhanahu wa taala def na ci jaamam yi ñu ragal ko mu waxaat moom yàlla wali man xaafa maqaama rabbihi jannataan képp ku ragal yàlla subhaanahu wa taala ëllëg yàlla dina la faye dina la wàcce wàccuwaayu nga am ñaari kër ci aljanna mu waxaat moom yàlla wa hum min xasiyatihi musfiquun ñoom jaam yu baax yooyu ci ragal seen borom ci tiit ko ñu ko def lañ subhanahu wa taala mu waxaat moom yàlla ne wa iyaaya farhabuun looloo ngi ca suratul baqara aya 40 man dong man yàlla nan ma ragal mu waxaat moom yàlla fala taxsawu naasa wax saw nii kookoon ca maayda aya 44 bu leen ragal nit ñi ragal leen ma man yàlla borom téere bi nee na wa amsaalu haasi l ayat fi l quran kasira aaya yu mel nii ci alquran dafa bëri lool yi nga xam ne dañuy soññ nit ñi pour ñu ragal yàlla kese bañ a ragal lenn bañ a ragal kenn bañ a ragal dara ragal yàlla rek rek rek rek aay yooyu ci alquran kenn xamul nu mu toll waaye maal asaf ñàkk a jàng alquran ak ñàkk koo dégg tax na doomu aadama yi waxuma sax ñu ragal mbindeef waaye ay gunóor sax dañ ko ragal waaw xal ay lu nekk lu nekk dañ ko ragal tey ragal nit ragal leneen ci ay mbindeef ragal ay def-def bëri na tey jullit bu melul ni nga war a mel lu ko waral mooy ragal rek ragal waaye boo meloon ni nga war a mel xam li nga war a xam gëm li nga war a gëm kon aaya alxuraan yi day nekk ci sa pas-pas kon doo ragal kenn ku dul yàlla mbokk yi xam ngeen ne yonent yi alayhimu salaam su fekkoon ne ragal nañ leen seen mission du dem xoolal yonent ku war a ñëw ci pénc war a wax loo xam ne lii da ngaa fekk pénc mi di ko def te xam nga ne soo ko waxee du leen neex mais di nga ko wax te xam nga ne nit ñi boo ko waxee dinañ def seeni pexe ku am pexe di nga indi sa pexe waaye yonent yi yàlla rek lan ragal moo tax gis nga seen mission yépp a yegg mbokk yi mu ne wal xawfu min xaysu huwa salaasatu aqsaam ragal boroom xam-xam yi nee nañ buñ koy xool di ko càmbar danañ gis mu nekk ñetti xaaj salaasatu aqsaam moom ragal ahaduhuma benn bi xawfu sharri wa huwa an yaxaafu min gayrillah min wasan aw taaxut an yusibahu bima yakrah kama qaala taala an qawmi huud innahum qaalu lahu in naqulu illa ftaraaka bacdu aalihatina bisuu qaala inni ushhidu allaha wa qaala inni ushhidu allaha washhaduu anni bari'un mimma tushrikun min dunihi fakidun jami'a summa la tunzirun borom bi wax na loolu ci suratu Hud aya 54 mu ne benn bi ci ragal mooy xawfu sar ragal musiba wala xawfu sir sir ragal secret ragal goo xam ne ragalu secret la wa huwa an yaxaafu min gayrillah mooy nga ragal ci secret nga ragal keneen ku dul yàlla nga ragal leneen lu dul yàlla ci secret comme ragal xërëm sanam wasan ah wala nga ragal taaxut mooy xërëm jàpp ne comme li gars yi di wax bu ngeen bàyyiwul sunu tuur yi bu ngeen bàyyiwul sunu bant yi bu ngeen moytuwul xeer yi léeg nga gis benn bu xaaba buy menacer kenn benn jullit naan ko boo ma moytuwul gis nga diw ba mu ñu waxee xoolal diw lay menacer ndeysaan pour nga ragal li gars yi waxoon Ibrahim soo moytuwul sunu yàlla yi mu ne leen kayfa axaafu ma ashartum man dinaa ragal li ngeen bokkaale yéen ragalu leen man may ragal allazina amanu walam yulbisu imanahum bi zulm ulaayika lahumul amnu wahum waaw ki gëm yàlla jaxasewul ak ak ngëmam lenn ak kenn kooko nekk ci jub wala nekkul ci jub ne ulaayika lahumul amnu ñoo ñoo nekk ci kóolute ñoo nekk ci sécurité kon ku ànd ak yàlla jaru ngay ragal dara waaw kon ragal ci secret ay xërëm ak ay bant ay kuur an yusibahu bima yakrah nga ragal ne man kat su ma attaqué lii dina am lu ma laal waaw su ma waxee lii dina am lu ma dal nga ragal ba doo wax loolu loolu moo tax tey li ëpp ci ñun ci ay borom xam-xam yuy woote ci diine da ngay dégg sax yenn saa yi ñu lay moytu ndikuloo naan la bul wax ci loolu ndax gars yi dañoo garaaw boo waxee léegi ñu kii la ñu xërëm la wala ñu njawar la wala wala wala wala wala waaw yow nag bu la yàlla waxee nga wax léegi pour loolu dañ nag yow nga ni loolu doo ko wax parce que da ngaa ragal loolu léegi est-ce que ragal nga yàlla ñaari ragal muntaam kon dañ la la koy tiitale mais na la leer ne boo amee pas-pas bu wér ci yàlla loolu sax boo ko waxee dara du la dal am na benn waaye bu demoon bar ñi mu fekk fa ñuy jaamu benn bar ñu ne mooy mooy tuuru dëkk bi ki may wax kii xam na ko moom daa ñëw rek jubal ci rab bi ci bar bi génne paaka tëral ko rek nit ñi yuux bu ko baax kii lu muy def nii xanaa kii dafa dof mu leen bàyyi leen ma rey ko ngeen noppalu gars yi di yuuxu di bërëngu di xëm di dee mu ne bàyyi leen ma rey ko ngeen noppalu ngeen ne mooy rabu dëkk bi bàyyi leen ma rey ko dëkk bi noppalu ñu ne ko yow de xaw ma kan waaye yow pare nga yow waa ji dara jalu ko mu jóge ci dëkk boobu dem beneen dëkk mu ñëw ne leen damaa bëgg fu ma bay gaa yi yéex mu gis foofu fu tooy xepp xaw a naat rek mu ruuj ko gaa yi ñëw ne ko yow xanaa xamoo fi ku ko bay dee yow dee da ngay dee mu ne waaw bu ma dee ngeen suul ñu ne ko kenn du la fi suul bindal sa numéro téléphone fii bis boo dee ñu woo say mbokk ñu yóbbu loolu da ngaa dëgër bopp lu yàlla def mooy gis nga nawet boobu bi mu ñëwee ba ba taw waa ji ji gerteem gerte gi naat parce que fi mu ko def dafa baax suuf si fi mu ko def ñoom nag nee nañu foofu kenn du ko bay ndax mbay dee la tudd ku ko bay dee ñu bàyyi loolu daw dëkk bay feneen moom année boobu moom moo ëpp ca dëkk ba gerte bi mu bayee ba pare nag mu feebar comme dafa gëj a bay Dakar la jóge bi mu feebaree rek gars yi ne ko ñëw doo xool lañ la ko xool nañ la da ngay dee nga weddi ko yaa ngi ci gis nga mu ne leen déedéet dara dalu ma damaa tooy rek damaa tooy gars yi ne ko tooy too too tooy ndax da ngay dee waa bismillah waxal foo dëkk Dakar kii moom waxuma la sax nga dee waaye kenn du la fi sax suul da ngaa dëgër bopp mais gis nga waajooju bi année bi jeexee moom moo ëpp gerte ca dëkk ba mu boros ay saakoom jaay jël xaalisam def ci poosam après nag mu woo waa dëkk bi nag ñim ñëw mu ne leen waa yéen ngeen ne fi ma doon bay ku fa bay loolu lay jot ñu ne da ngay dee mu ne yéen fi ngeen doon bay ana ñen ñoo ko doon bay jaay na pat mu ne seen maam anañu dee nañ mu ne bay dee bayul dee te ngeen a bay fii ngeen naan bay dee la bu ngeen bayee di ngeen dee bu ngeen bayul di ngeen dee mu bàyyi leen ak tool ba foofu ñu koy xëccoo ku nekk naan moo koy jël dafa am ay mbir yoo xam ne fekk nit ñi teguñu yàlla mbokk bi jàngale ci biir jàkk ci biir jumaa ji fii kii jàngale ci école bi seen dëkk jumaa joo xam ne maamam moo ko taxawax jumaa ji kenn ñemewu fa nodd ku fa nodd da ngay dee maamam moo defar jumaa ji julli fa ba dee noddul papaam ñëw remplacé ko ñemewul nodd waa jaa ngi fii di ma dégg ku fa nodd ay yamb ñoo ñëw jóge ci àll bi tak ci guy gi màtt la ba nga dee waa ji dem jàngi Mauritanie ñibbisi ñetti fan la def ci dëkk bi ñeenteelu fan bi mu songu jàkka ji tisbaar noddu ci kaw ñépp tiit yamb yi départ ci àll bu ñëw teg ci garab gi di ko xaar nit ñi ne kii dee na kii dee na kii pare na ñëpp kenn ñemewul julli si tisbaar moom kese moo julli keroog tisbaar boobu ci jàkka ji mu julli ba pare génn romb yamb yi ci garab gi pot photo photo photo jàkka ji mu ngi sama portable mu ngi fii ma filmé guy gi garab yamb yi tegoon mu romb guy gi romb garab gi dem ñibbi seen kër papaam ne ko boo noo dee tàkkusaan ma génn dëkk bi waaw ñëpp wër ko di wax yow li nga fi fekk nangam nangam da ngeen dëgër bopp da ngeen a mën a weddi waaye nee na mu mu xaw a mu xaw leen a ruus mu tëb tàkkusaan bi timis jot rek mu noddaat mais ba léegi nii ñu ngi fay noddu tey papaam bi ragaloon noddu moo fay noddu tey kon nit ñi waruñu ragal ku dul yàlla loolu mooy problème mu nit ñi nag ñi ngay gis tey kuy xëy suba ubbi sa buntu kër gis ñetti nen rek bis boobu doo xëy sa xëy yàqu na waaw boo fekkee sa place fi ngay liggéey nga fekk fa benn téere sa àdduna yàqu na téere laa fi fekk ah lu nekk loolu nag la nit ñi war a baax gëm yàlla kese kese kese ragal ko yàlla nee na man képp ku wakkiirlu ci man man yàlla ma doy la fi mu nekk nii ku amoon problème ci réew mi président de la république nekk sa xarit lu gars yi di wax moom de problème am day réglé wu ah président waaw léegi yow bu yàlla nekkee sa xarit nag boo làqatoo ci ginnaaw yàlla ndax am na kopp yàlla doole loolu mooy sunu problème kon dañ dellu siwaat ci aaya yi mooy bu nu ragal ku dul yàlla moo tax mu ne ragal yooyu pour bu mu la def dara moo tax lii mu ne moom la qawmi huud waxoon huud innahum qaalu lahu ñoom wax nañu huud ñoom nitu huud ya bis boo waxee dara ci sunu yàlla yi in ta in naquulu in taquulu loola na in naquul illa ftaraaka baadu alihatina bisu bis boo fi waxee dara sunu yàlla yi dinañ la teg lu bon qaala inni ushidu llah wa ushidu inni man ushidu llah maa ngi seedaloo yàlla washhadu yéen ngeen seede anni man bari un ku dañ laa mi ma tushrikuna ci li ngeen di bokkaale bis boo fi waxee sunu yàlla yi dara yàlla yi dañ la mbugal mu ne leen maa ngi seedaloo yàlla di leen seedale yéen ñii lii ngeen di bokkaale man deñ naa ci duma ci sax duma ko sax ragal waaw duñu tus Ibrahima loolu la waxoon gaa yi ba mu fekkee ñu samp xërëm yi di leen jaamu mu def pexe daaneel yàlla yëpp yëkk ci yàlla ju mag ji biñ ñëwee lu ñu wax man faala haza bi alihatina kan mu def ni sunu yàlla yi lan la leen Ibrahima mujj waxaay uffin lakum waay nekk ngeen di jaamu lii loo xam ne mënul njëriñ boppam mënu koo lor kon yooyu noonu jërul ragal waaw benn waay benn buxaaba fii la menacé benn mbokk fii fii ay numaan gi ñu nekk ci ginnaaw jàkk ji heure timis ñu jàppante mu ne waa ji yow di ma xam may kan waa ji ne ko baax na mu ne baax na waa ji ñibbi ñëpp ñëw ci waa ji naan ko demal nga baalu ko demal nga baalu ko kii bambara la déggu sax olof demal nga baalu ko mu ne leen duma ko baalu parce que tooñu ma ko jóg ju jàpp julli ñaar raak ne yàlla defuma ko dara lépp lu ma ko def doxal naa la sama diggante ak moom waa ji yeewul fajar ci biir néeg bi la dee waa jooju ci biir néeg bi lañ ko lañu dajj bi fekk ko mu dee ba nëpp keneen ki bu xaaba bi dañoo ñëw fekk mu dee te loolu bëri na bu ma yatawakkal ala llaahi fa huwa hasbu nit ñi dañoo war a xam ne waruñu ragal lu dul yàlla déggoo ñu ne lu dul yàlla neen la kon kay bu ragal leneen naka la nit di waxee rek moo tax tey ragal gi ñu ragal ñooñu wala dara mënut a baax ah man de bu soobee yàlla da ngay gis koo xam dafay ñëw ba ci pot làmp ñaari pot làmp yi def nii i bul fi jaar bul fi jaar lan la i wóorul lu fa nekk yenn saa nga dégg ku ne man de sax bu bu nit rëddee ne bul fi jaar duma fa jaar ndax wóorul lu fa nekk benn mbokk mu may nettali dëkk bi ñu demoon barki démb nee na foofu dugub bi bu ñoree ak mboq bi wala ñu koy lekk benn maire moo fa nekk moom mooy ñëw jël ci dugub bi jël ci mboq mi fu nekk mu witt fa dem ci tuur yi jox ko tuur yi ba tuur yi lekk ba pare nit ñi doog a lekk. nee na moom mu ñëw ci dëkk bi mu gis affaire yi ñor mu ne gars yi du ngeen lekk gars yi ne ko yii lekkaguñu moom mu dem lekk ba suur ñetti fan muy dem di di toj mboq yi mboq yi di lekk gars yi di ko xool daal yow léegi nga dee. mu ne xoolal ñoom ñoo ko bay maa leen ko njëkk a lekk mu ne man du ma xaar kenn ñor na yàllaa ko moom kan la kan nga ciy tàggu mais loolu moo am ci dëkk yëpp bu ñu bayee bala ñuy lekk ñu dindil ci rab yi bu ñu napp jee bala ñuy lekk dindil ci rab yi bu ñu reyee xar bala ñuy lekk dindil ci rab bi bu ñu reyee nag bala ñuy lekk ragal googu nag ñu war a ñu ragal yooyu moo tax du ñu ragal yàlla te yàlla rek lañu war a ragal feek ragaluñu yàlla kese kese kese sunu diine des na moo tax gis ngeen mbooleem yonent yi menacé nañ leen huuda ngi nii biñ ko waxee loolu lan la leen wax man de maa ngi seedeloo yàlla di leen seedeloo yéen ñii anni bari'un mimma tushrikun min dunihi lépp lu ngeen bokkaaleeg moom walis yàlla man de deñ naa ci loolu mu ne fa kii duuni jamian fexee leen ma yéen ñëpp waaw su ma laa tunziruun bu leen xaar dam leen ngeen def seeni dugg dugg seeni pexe dam leen benn mbokk mu ngi nettali benn boroom xam-xam bu mag docteur la amaana ñu bari xam nañ ko parce que xëy na sax CD bi léegi wala cassette boobu mu def waxtaan boobu tasaaroo na trop xew-xew baa ngi xewe woon parcelle benn boroom xam-xam buy dund sunna bu mag benn sëriñ mere ko xëy na li muy wax moo ko neexul mu daal di woo kooku fay ko xaalis bu bëri ne ko damaa bëgg nga reyal ma diw jox ko avance bu xaaba bi benn këll la yor këll ku mu bugg a rey day bind sa tur def ko ci fanaanal ko ci ron lalam bët set rek nga dee mu daal di jël turu ustaas boobu borom xam-xam bi daal di koy bind ci këll gi ci këyit def ko ci këll gi dugal ko ci ronal bi guddi mu tëdd di nelaw mu gis benn ponkal ñëw moom waa ji bu xaaba bi poñe ko yëkkati ko ba ci kaw nuur ko ci géej ba kenn gisatul bopp bi mu génnewaat ko mu nuuraat ko génnewaat ko ne ko soo bàyyiwul diw su ma ñëwaatee fii dama lay rey dégg nga li ma la wax daal di koy bumax ci kaw la lal bi waa ji neen mu tiit yeewu mu tiitee yeewu mu ne fekk gént la mu ne alhamdulilahi rabbil alamin mu song këll gi ci ron lal gi gisul këll gi gisul këll gi mu tiit mu ne kon ah ana këll gi gis ko nee na mu tëdd tëdd tëdd ba fajar jot bi mu jullee mu jël kurusam mu ne xaaral ma doxantu dem ci géej gi ma waaju doon nuur parce que sorantewul mu dox ay quelques mètres ba muy yéeg ci géej gi mu dajeeg ay xale taalibe yor këll gi di ko paasante di ko fowee këllam gi mu dencoon ci noonu mu fekk xale yi di ko fowee mu ne xale yi fu ngeen foree këll gi ñu ne ko fee mu ñibbisi mu gis géej gi ko waa ji doon dugal nii mu teg ci bëtam mu fii la mu ñibbee ba mu ñibbee mu jël ay bagage am daal dem ci ustaas bi ñëw ne ko asalaamaaleykum mu ne waaleykum salaam mu ne ko dama bëgg nga baal ma aax kooku ne ko ma baal la aax loo ma def ah man kay mënuma laa baal lu dul nga wax ma loo ma def mu ne ko man kat sëriñ diw moom ma joxoon xaalis bu bëri nee naa la rey joxoon na ma avance sax ba pare waaye bi ma defee samay affaire ba pare nga xam ne loolu su ku ma ko musee def nit rek day dee yow mii nag bi ma la ko defee gis naa ci loo xam ne day moo tax ma ñëw ne la baal ma wax kooku ne ko du ma la baal lu dul mu am benn charte charte bi mooy nga bàyyi njabar ma baal la soo bàyyi njabar du ma la baal nee na góor gi daal di tuub bàyyi njabar commencé di jàng alxuraan di jàng diineem balaa muy génn àdduna fekk yàlla defaraat na mbiram yépp mu tuub te comme kooku rëcc na kon mbir yépp loolu la wallahi mbokk yi ñun ñépp a ci bokk yem képp ku jàpp ci yàlla yàlla doy la ni yàlla aare woon yonent yi ni yàlla aare woon nit ñu baax ñi noonu la la yàlla aare boo wakkirloo ci yàlla waaye takk ay béjjën takk ay xaaw takk ay petaaw takk ay lam takk weñ yi ñuul sangu fële diwu fële amul benn njëriñ kuy ragal daal na nga ragal yàlla subhanahu wa taala loolu moom mooy diine ragal yàlla mooy diine borom bi nee na subhanahu wa taala ba tey ci suratu zumar mu ne wa yuxawifunaka billazina min dunihi wa yuxawifunaka ñu ngi lay tiital di la ragalloo billazina ci li nga xam ne min duunihi du yàlla gis nga de ñu lay tiital leneen lu dul yàlla gis nga waaw ñun suñu koñ amoon na fa benn waay boo xam ne da doon weddi waaye gis nga ah nangam nanga tiital tiital yooyu lañ lay wax gis nga dëkk sàngam ah ku fa dem nangam ak nangam gis nga diw am na ku nekk benn dëkk fële gis nga kooku ku mu jàpp waaw yooyu lañ lay wax pour yow nga tiit ba li nga war a wax wala li nga war a def wala fi nga war a dem dootoo fa dem kon bu ragal kenn ragalal yàlla na nga yëg ne même buñ la boole woon ak kenn même bu la kenn bu xaaba woon wala mu njabar la wala wala dafa neex yàlla mu dal la qul lan yusibana wa ma hum bi daarina bi min ahad illa bi iznillah kenn ci ñoom mënul def dara lu dul mu neex yàlla moo tax mu ne ñu ngi lay tiital ci leneen loo xam ne du yàlla mu ne wa haza huwa alwaqi lii mooy li am min ubaadi alqubur wa nahwiha ci jaamukatu bàmmeel yi xërëm yi ñi nga xam ne ay bàmmeel la ñuy jaamu ak ay xërëm ak lu mel noonu min al awsaani mu ne yuxawifuunaha yaxaafuunaha wa yuxawifuuna biha ahla tawhid ñoom ci seen boppam dañoo ragal loolu bi ñu ragalee loolu ñuy jéem a tiital waa ahlu tawhid ci lii ñu ragal ñoom maanaam waa ji li mu ragal loolu la lay jéem a tiitloo moom te gis nga képp ku amul tawxid amoo connexion ci sa digganteeg sa borom waaw mun nga am portable portable mun na am pis waaye boo amul réseau ah am nga internet mais doo am connexion lan la jëriñ loolu mooy nit ku amul tawxid portable baa ngi nii la ordinateur baa ngi nii amul réseau amul connexion mi ngi nii nag marque bu rafet bu bees tax la lépp ngi ci mais mënoo fexe ba mu am réseau amul njëriñ xam nga kooku foo koy mujj dugal ci biir valise bi nga tëj ko amul la benn njëriñ loolu mooy nit ku amul tawxiid nu mu mun a mel lu mu mun a am ba amul njëriñ léegi nag ñooñu nga xam ne amuñu tawxiid loolu ñu ragal nen yooyu ñu ragal guro yu weex yooyu puso yooyu yooyu ñu ragal yooyu nag lañ lay jéem a ragal loo yow pour nga tiit ko pour nga moytandiku waaw na nga moytandiku dëkk bi wóorul waaw léeg-léeg nga gis kuy kuy kuy xërëmlu soo ko ne waaw li ngay def nii nag barki démb rek benn jigéen woo na ma benn waaye woo na ma téléphone mu ne ma sama mag dafay tabax këram léegi kër gi dafa kër gi mu ngi waaj a pare maçon yi dañuy teg dal bi mais dañu ne foog ñu rey xar ci kër gi ma ne ko lan mooy sabab bi mu ne ah yaakaar naa laal dañu bëgg a ñaanal kër gi ma ne ko loolu xërëm la képp ku tabax kër tuur ci balaa ngay toxu wala ngay toxu nga rey fa xar te sabab bi mooy kër gi bu la yàlla jàppee nga bax nga nga xam yeneen bi nee na yow yàlla rëbb na la laana allah man zabaha li xayrillah képp ko rendi te rendi loo yàlla yàlla rëbb na la ma ne ko leen dong mooy tax xar moom ngeen rendi ngeen am ci tiyaaba mooy ngeen rendi ko def ko añu maçon yi ak añu waa kër gi comme dañoo bari waaye bis bu ngeen ko rendee ngir kër gi ndaw si daal ne waaje nañ ko bàyyi parce que waa ji woon na ko wax ko dëgg gi ndaw si tamit di ku baax daal di ne ah man de li nga wax ànd naa ci ndax ñii ñoo ma ko doon wax rek man sax gëmuma ko woon waaw ma ne ko nag léegi leen dong moo ci mën a nekk mooy añ bi nga yéene ko yow mi ko moom ne añ la xar bi añ la ko defee loolu moom dagan amma boo ko rendee yéene bi mooy kër gi la na la leer na def nga musiba rey nga xë tuur nga deret ci xërëm te képp ku rey dara ndax xërëm yonent bi nee na yàlla rëbb na la kon loolu nañ ko moytandiku alxuraan wax nañu ne lépp te xar mu mel noonu kenn amul droit lekk ci moo tax yenn saa yi mbokk yi ma fàttaliwaale fii yenn saa yi nga nekk sa kër ba saaga rek ñu indi la yàpp nga dëkk ak benn bu xaaba boo xam ne day indi lu ay sarax ajjuma bu nekk wala dimanche bu nekk ñu rey xar mi ci kër gi waa ji jël deret bi di ko sangoo yow mu jël yàpp bi saraxe ko ci koñ bi balaa ngay lekk yàpp xamal yàpp lu mu yàppoo bëri na ñuy saraxe yàpp naan dañoo rey sunu benn xar wala dañoo dañuy saraxe wala dañuy nàngam fekk xar ma ñu rey dañ ko rey ngir ku feebar ngir ku feebar bi sangoo deret loolu musiba la loolu kenn du ko lekk lépp lu ñu rendi te yàlla taxul loolu dafa xaraam wa ma uhilla bihi li gayrillah wa ma zubiha ala nusub lépp lu ñu rey ngir xërëm araam na kenn waru ko lekk dañ bàyyi xel loolu bu baax a baax te li ëpp ci xar yooyu ñuy rey du ñu tudd yàlla ndax xërëm la dañu ñëw rek rendi ko looloo tax yu bëree bëri nañ ci bàyyi xel mu ngoog kon borom bi nee na wa yuxawifunaka billazina min dunihi ñu ngi lay tiital ci leneen lu dul yàlla mu ne lii nag mooy mbiru jaamukatu bàmmeel yi ak jaamukatu xërëm yi lañu ragal la ñuy jéem a tiitloo nitu tawxiid yi isa ankaru ibadataha nitu tawhid yi bu ñu bañee jaamu bàmmeel yeeg xërëm yeeg nangam nangam rek day ne la waaw gis nga yow da ngaa mën a weddi waaye demal rek danañ la jógal yow di nga xam ne suñu dëkk bii nangam nangam waa di la tiital tus du dara billahi wallahi boo wàkkirloo ci yàlla ñoom ñëpp danañ torox tus lañ la mënalul waaye nag léeg-léeg ñu menacé la nga daw waaw am na benn mbokk boo xam ne seen dëkk kenn du fa am doom reyal ko xar bis boo amee doom boo rendee xar bi doom bi dee xoolal xërëm yooyu waaye moom bi mu ñëwee Dakar ba yàlla dimbali ko mu gis sunna mu takk soxna ñibbi si Dakar soxnaam ëmb muy dem di ñëwaat ba soxna si am doom ñu téléphoné ko ne ko soxna am am na doom bi muy dem dara la jaar jënd xar bi mu ñëwee bi mu papaam gisee xar bi papa ji dafa jóg taxaw ne ko xar mi fu mu jëm mu ne ko ci kër gi ngénte gi papa ji ne xar mi du dugg sama kër mu dem yeew xar mi ci péncam moom ci ruxoom nit ñëpp ñëw ne ko looy dee xar mi mu ne ko dama koy rendi ndax tu bisu tudd bi dama koy rey ñu ne ko fii kenn du fi rey mu ne man dama koy rey bi mu rendee xar bi xale bi dee ñu ne ko gis nga waxoon nañ la ko mu ne lu ci sama yoon man li ma diine wax laay def na dee dafa waroon dee mais yàlla moo koy nattu pour nit ñi ne ko gis nga lañ la waxoon du la nga sob da nga dëgër bopp nii ngeen mel waaye deuxième doom bi troisième doom quatrième doom cinquième doom ñëpp a ngi dund léegi waa dëkk ba ñu ngi rendi xar kon yàlla mooy nattu yu bëri fii ngeen di gis kenn du def lii kenn du ñaan xorom guddi yéen ñiy jaay kenn du jaay puso guddi kenn du diri cin xaw ma kenn du kii kenn du bale guddi kenn du raxas ndab guddi yooyu ñuy wax yëpp du dara kenn du socc guddi ku am ndey du socc guddi tey ku socc ne subhanallah dindi socc bi sa yaay ngi dund nga ne waa ñu ne bul socc bul socc ku am yaay du socc guddi socc day rey sama yaay kon de dina dee ay caaxaan rek yooyu nag ñu lay tiital bis boo ko gëmee rek mooy bidaa sax na ci dëkk bi bidaa sax na ci kër gi waaw ñun duñ def loolu ñun duñu def lii ñun lii lañ bidaa yooyu mbokk yi ak aada yu bon yooyu lañ lay jéem a tiitaloo ku yeboo nga bàyyi ko ku yeboo nga sori ko mu ne wa amaru bil ixlaas al ibada lillah ñii jàngale tawhid bu ñu woowee nit ñi ne leen kaay leen ngeen sellal ngeen jaamu yàlla wa haza yunafi tawhid lii dafa dàqonteeg tawhid rek nga gis ñu commencé kon lii mooy benn tomb bi ci alxawf mooy xawfu sir ragal ci secret buñ lay tiital di la xoqatal naan la boo fi defee sàngam boo fi waxee sàngam di nga xam ne suñuy nàngam yii suñu lii suñu laa kon na nga yëg ne yow mi wax ci diine mbir yooyu waroo ko sax gestu war ngaa xam ne yow ànd ngaa koo xam ne ku ànd ak moom rek rëcc ku làqatu ci moom am foo làqatu ku wéeru ci moom ne kañ daal di dëgër kon waroo tiit yu ndaw ndawaan yi ak yii ñu lay wax menaces yi loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ba sunu pas-pas menaces yi ñuy menacé pas-pas yi du ko wàññi du wàññi sunu pas-pas ci daal yàlla subhanahu wa taala dara nañu yëg ne bis bi nga war a dee garab amul bis boo waree feebar garab amul bis bu la dara waree dal garab amul kenn mun la aar lu dul li yàlla wax bis boobu mooy dal ci yow su yàlla ne bis bi moo te tey jii ngay dee munoo dem fenn ba doo dee su yàlla ne bis bi ngay feebar munoo naan garab wala nga dem fenn ba doo feebar lu yàlla wax ci yow mooy am kon yàlla na yàlla def ci ñu dégg ak topp incha allah bismillah loolu mooy ñaareelu dars ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci ñun dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu